diine yi nga xam ne boobu ak ñu bëri nee na ñoom dañoo noppi. waaw non man affaire wu kilifa diine yi sax man bu ma sañoon dooma ci laaj parce que xam naa ne ñoom li ñu war a def ñu koy def du ban loolu laa gëm quoi ñoom li leen war ñu parce que kilifa pour man du àtte xeex te Macky Sall xam nañ ne ku ñuy xeexal la sëñ Mountakha ñaan na Ousmane Sonko ay yoon yoon ci mbirum Mbaye Touré mu lànk ba sëñ Mountakha jógee Touba dem seeti ko ca kaso ba ab taalibeem la woon sëñ sëñ Sidi Maxtaar nee na ko bàyyil Karim Wade mu lànk Ah, sëñ Abdou Aziz Senior taxaw ne fii ne Macky Sall dëgg dëgg dëgg ku dëgër bopp la mais kooku jër ta naan parce que tegul kilifa diine fenn Macky Sall kenn rek la teg fenn muy jeunesse bo xam gatsa gatsa jeunesse bu Ousmane Sonko boo xam ne namputal ko ci gatsa gatsa rek la xam parce que xam na ne cër Macky Sall bis bi mu njëkkee jàkkaarloog jeunesse bi ne leen déglu naa leen dégg naa leen wax waxu yar yoor ba di ci suuf mooy événement marché ya ban ñamanteeg moom lu set wecc ca la nu joxe cër ba jamono jii Macky Sall même ñu koy jàppale di ko wax aw yiw di ko du leen fal ñu koy saaga ak di xeex ak ñoom ak di ko teglu lu metti lay lay fal Macky Sall du ku nuy waxtaanal Macky Sall ku nuy xeexal la te Ousmane Sonko xam na loolu ñun ñu ànd ak Ousmane Sonko it xam nañ lool patriote yi tamit aussi li ma leen di lancé nañu bàyyi ndigal la ñuy déglu sa géttu nag boo ko yoree di ko sàmm soo taxawee di leen déglu dañuy ruur tooli jàmbur wala bukki jël ko Ousmane Sonko bàyyi leen moom lañuy ñuy déglu dañoo war a xam dañoo war di ko détecté xam li mu bëgg ñu dox ca te xam ne li mu bëgg sunu njariñ la Ousmane Sonko lii mu nekkee coono bii mu nekkee capacité am ak may na ko mu dundu li mu bëgg a dund kilo ceeb bu doon jar cent mille francs na koo jënd man mii ci loo boobu bokk te damaa bàyyi sama lépp ñëw di xeexal senes bi ak di xeexal suñu suñu suñu suñu askan ñii fi nekk ñii fi nekk képp ko ànd ak Macky Sall li ma waxoon ci début bi rek sa intérêt kese kese ngay défendre mais li gën a ñaaw nag mooy lekk sa alal lekk sa alalu doom lekk say sët te ñii ku nga xam ne yor nga lépp looy noose rek xamal ne yaa ngi lekk wërsëgu jàmbur gars yi seen village yu mag yi ñu yor mbuur yor ko Saly yor ko Dakar gii juróomi kër di xàll xàlli wat naa ko ci Serigne Touba Mbacké wërsëgu ndaw ñi juddoo gud la ñooñ Macky Sall la baax Macky Sall la ñu jig ñoom Youssou Ndour ak ñoom euh, gars yi loolu rek lañ mën a wax Macky Sall la jub juróomi kër Mercedes bu génnee see nga jënd BM bu génnee X7 nga jënd Range bu génnee Velar nga jënd yor juróomi kër yoo xam na benn bu ca milliard lay jar yor sa jong ma yu nooy ba mel ni pëddum nen jàmm ngay naan pour mën a seetloo loolu mais ñun lii lañ xam ne ci naaj wi parce que lekku ñu naanu ñu na buur masal nu boole ci aar nu te gaaw teggil nu makki euh, makki ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah